jërëjëf asalaamualeykum mbooloo mi j'espère que yéen nekku leen di layam layami maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu leader yi toog fii yëpp di wax ci turu coalition citoyenne le peuple nga xam ni fii ci kaw rek ñu ngi fi toog ak le camarade Clédor Sène ak le camarade Abdou Karim Gueye euh, le coordonnateur Mansour est empêché mais di leen wax ni ñun coalition citoyenne le peuple comme niñ ko doon defee ñun ñëpp lee leaders en 2011 taxaw dem ni bu kenn soppi suñu constitution ni dañuy tere majorité présidentielle ba ñu xeexoon ba ay nit seen bakkan rot ci loolu ci lañ taxaw ba tey après dix ans ñu ñuy wax ñun waa coalition citoyenne le peuple lu tax ñu tuddee suñu coalition le peuple mooy que fii kenn amu fi doole peuple sénégalais kese moo am doole président Macky Sall doole bi muy jaay sénégalais yi sénégalais yi dañoo war a pare pour jënd ko lépp lu mu ko jaral waral nañu ko jaral ñun sénégalais yi parce que réew mi dañ ko fee faloon falaat ko fi ci ak càcc gu leer nañ léegi nag mënatu la falu fegal na day dem abal ñu sunu réew ñu jox ko keneen ku nu wóolu lii rek mënta am leneen su bëggee jéem a jalgati constitution Sénégal bi nga xam ne li mu wax lu leer la danañ mobiliser le peuple sénégalais ñu dox fekki ko palais de la république déloger ko du palais de la république loolu mooy li nga xam ne ñun pare nañu pare nañu pour loolu président Macky Sall mu leer ko ni ko su fekkente ni li muy mébét ak lambar lambaram jim nekkee ci réew mi lambar lambaram jim nekkee ci réew mi lépp xam nañ li ko lal mooy di jéem a wuti pexe pour jéem a nekkaat candidat en 2024 te moom fegal na te ku fegal da ngay jox sa wujj mu aaye